mënta nekk damani ni maam Cheikh Rahma Fall. waxuma la moom moom daf ñoo ëpp. man naa laa limal fi ma toog man man fi ma toog man naa la fee limal 60 ñoo xam ne ko ne ngaa taxawal tarixa te ay taalibeem lañ. ci kër Cheikh Ibra waaw. yow foo yóbbu sëñ sëriñ Ibrahima Thioune Samba Naar bu cees maam Cheikh Rahma Fall nee na mooy imaamu Barzak Thiès gi la tëddoon fan ngay teg sëñ Ibrahima Wade. foy dugal señ Mor Diagne njar ma ca jander malako wax nga xamni ni avant muy genn aduna dafa dajale jabo jabotam bañ dajalo moom señ Mor Dia da am ñuko tekk won ndax daan songi jinne señ Mor Dia njar waxuma moom mam Cheikh Rafal mo ni señ Mor Dia may naa la pon ba ca ndar ba lamp bi ci ngor lo fi atta yalla lo lay lo lay do lo fi bëgg yalla def pon ba ca ndar ba lamp bi ci ngor may la lepp lo fi dogal yalla and ci ak yow Mor Dia borom jandeer dafa amone njabot bi mu demee ba 1960 le génn aduna avant muy génn aduna dafa wax mom seigne Morja amna ñuma doon tekk dañu xam ne liggéeyal naa sama baye Cheikh Rafal wilaaya ji ma am nit di ma dama leen bëgg a jël seere dajale njabot gep bañ dajalo seigne Morja ni njabot na sama njabot yaatuna na lool li ma ci ciy doom waaye na ngeen tak yéen ñima ma yaakaar topp ma dima liggéel ngir maam Cheikh Rafal ma ngi jëm barzak fan yu néew damay génn aduna loolu waaye su ma génnee àdduna sama ginnaaw fii ak fanweeri at sama ginnaaw bu ma tëddee barzaq bu sama benn doom bu góor faatoo fekk ma barzaq fii ak 30 wala bu jigéen xàcc leen du ma waaja gën wuti sëriñ xam ne maam Cheikh Rafal defaruma ma soo gis benn wàllu bu engage loolu wàllu yi mën naa engage li mu fekke ni garanti naa la booy dem bërëb sàngam maa ngi lay xool sama bëtu baatin lu la nar a song ma ma felu waaye maa ngi jëm barzaq sama ginnaaw laay assuré tëdd barzaq fii ak 30 ans dom bu góor ak bu jigen njabot na bu ci kenn faato fekk ma barsàq xàcc len duma waji ji liggéeyalu ma Cheikh Rafal ta koku mam Cheikh Rafal la yakka noy def seigne abdallah yakine Diop mi teud ci Thiès moo sante ah wallahi ah waaw waaw koy def ñepp bari nañu maase ni mooy al mahdi mu ngi teud fi ci ci Thiès nga xamni mom moom wilaayaam dafa fess 10 ba amul dom ju góor jigen kep la jur te keroog bi mu amee doom ju jigéen jox soxna màgget nu yëgal ko maam Cheikh Rafal dafa sóonu woon dani bërët ni ah génne ab laa yaqin sama mos am na doom ñu ne waaw mu ne malaaka nu muy amee doom bisimilah jàmm dañ ab laa yàq yi da ngi fii boo demee muusante ñu wan la tëli bi ni mu jàdde cantonnier yi dañoo mujj jaaxle defar tëli bi fotom bi sax moo ko féete wet xanaa moo mu ngo dem ba ci sëñ Fall mu ni baleen ko noonu waay waaw waaw daa rëy lool bi moo ngeen teggi ko rek dañoo mujj teggi ko wërale ko mu ngi Sall. La ilaha illallah Sheikh Rafal la Awao La سيخ رفال ابو ردال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا سيخ رفال لا واو سورو sëñ bu njaay lii lépp yàlla la Cheikh Ibra Fall Fall sóoru maam sëñ bu njaay lii lépp yàlla sóoru maam sëñ njaay فلا إله إلا الله لا إله إلا الله من صرف فلا إله إلا الله لا إله إلا الله من صرف الله baabul muridin amdi faal Moodu Mustafa yàlla daal faal nga yëngo Cheikh Ibra faal la la faal borom la wax ak 30 ans bu kenn ci samay muy góor wala muy jigéen xàcc sama baay Cheikh Ibra Faal kon def na 30 ans 1990 sa doomam di door a faatu fekkee ci ko barzak diggante 60 ba 90 benn doomam faatuwul góor ak jigéen te ko njaboot la. taalibe Cheikh Rafal la. ma ne taalibeem la. Serigne Mor Diop ngeen taalibeem la te mën naa ub làmb ji. sëñ daaw dangoom taalibeem la mën naa ub làmb ji. Serigne Mor Ndiaye tomb deel amul sax doom. junniy maraaxib la daan dékkee mën naa ub làmb ji taalibe maam Cheikh Rafal la. te gëm na cheikh rafal bi maam Seexra Faal yónnee ndox da gaaw dugg ci teen bi di ko lolo looloo indi tomb deel maam Seexra Faal ne ah moor tombati na deel gi di del buñ ko tombé day dem 700 buñ ko tombul 4 muni kon eppal na di mom temb na del gi waaye dal du ko ci fekk man la gëm te sall da fa ñew ñëw ca waxtu ni seut yi defar leen cere ji gaaw bu ngeen bëggee ma lekk ci ndax man bala takusan dama bëgg dem barzak wéttali sama sama baay Seexra Faal oh! baye Cerno sall talibem la daal di dem Touba jóge fa def këmbam ni duma teud fi waye ñu may patam patame su genn at nday gaaw wacc fi liggey ñu may patam patame na dem ci sans ci jébbu Fall gi ma do liggey sans bay Cheikh Rafal wacc fa liggey ñu waajal señ cerno Sall ci taalibeem yi la bok señ Moussa ñankol foo koy dugal fooy teg sëñ Cheikh Cheikh Massamba ndjay waqi fan lay jëm señ Abdoulaye sey bu keur ndjay lo fu mu jëm foo koy teg Alioune Kan bu mbaaleen foo ko jëmee ah fan ngay tek bay Cheikh Tall Galo fooy yóbbu Serigne Serigne Cheikh da bay fan la jëm dama ni mam Cheikh Fall do ci egg gis nga Cees gi serigne Bachirou Mbacke nuy si na fi nuy si na ko fi Cees dafa laaj lo xam sax ma ngi bëgga jall dama laaj la ilaha illallah lu ñu ci tek fal defena lool la wax fal adat ko fa 80 la ok fa 80 live 1 muy 81 Lam 30 plus 81 muy 111 kaaf yi 20 live 1 nga am 21 fa 20 fa 80 plus 21 muy 101 nga tok ci yanara gi ko xëcci nga am 111 kaaf le la tollul tur yàlla te ci wolof faal mooy jëlal dañaan dem ba daanu si kar gi Ta zikk zikrulaahi moo gën a màgg la wax

yaay baabil lum faal yaga baax maam say nooy yaay baabil lum faal yaga baax maam say nooy yaay baabil lum yàgga baax looy laay la naaw la laay faal yàgga baax ci di borom lu gono yow sa baay doy loo na la yàgga baax ci di borom lu gono yow sa baay doy loona la insaal doy loona la na yaay saal yaa ga baax si di borom lu gono yow sa baay doy loona la insaal yaa ga baax si di borom lu gono yow la jaam siyaare na siri naar jeen na naar yomb na baccalan saara jafe ma ndeysaan mu ngoog xam naa temps bi li ci des bëri الله لا إله إلا الله إلا الله إلا لا إلا لا إلا لا no.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 ci biir naan yàlla ma jàmm nga illa la fa deyi sera faal xare nga badar faal yaa ma daan xare nga yaa ma yaa fa deen illa la fa deyi doy nga noo doy nga noo ngam sakara baal doy nga noo ino do ino do ino ino waaw